soxna si Dieynaba Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi. waaw maa ngi leen di sant bu baax di kontaan ci dalal bi ngeen may dalal. Mm-hmm, mu doon weeru jigéen ñi euh, ñu nekk ca ba tey yow nga yor kàddu. nam chargé de communication fédération régionale association des personnes en de handicap bu Thiès. Mm-hmm. tey ñu waxtaane benn plaidoyer bi nga xam ne euh, seeni euh, Euh, ñooñ yu nekk ci comité des femmes de la fédération sénégalaise des associations de personnes en situation de handicap bu Pikine ñoo ko yëkkati wax ne euh, dañoo bëggoon ku leen gën a représenté wala sax ay représentants yu bëri ca assemblée nationale ci élection yi ñu dëgmal ban commentaire justement ci euh, appel googu. appel bi li waral ak li ko junj. Hmm. ak lii nisër bi yëpp mooy. ñun en tant que jigéen bu ànd ak laago. Hmm. ñu toog fa nga xamante ni bi fa la ñuy defee fa ñuy waxee mhm. li nga xamante ne bi moo jëm ci askan bi mhm. te comme ci askan bi lañu bokk dañoo bëgg fa ñuy waxee lu jëm ci askan bi mhm. fa nga xamante ne bi fa la ñuy rëddee fa nga xamante ne bi fa la ñuy jooyante fa ñuy defaree lépp loo xamante ne bi moo laal askan bi ñu ñu am fa ñu ñu toogal pour waxaale ñu dëxëñaale ca loolu ñuy wax suñu ay soxla donc loolu moo waral li nga xamante ne bi sama jigéen sama sœur yi nekk Euh, daal di yëkkati seen kàddu ci benn ndaje bu doon def. Mhm. pour wax ni jot na ñu bàyyi ñu xel pour que ñu mën a taxaw bu baax fee ñuy defee ak di fa dundee. ndax loolu dafa firnde ne seen i préoccupation euh, duñ ko fay euh, joyanti comme ni nga ko waxee. xam nga de olof dafay wax ni yuuxul ma boo gis yuuxu sa bopp moo gën a wóor. Mhm. xëy na ña fay toog jafe-jafe yi ñu am ñun niñ koy dund ak niñ ko xamee xëy na xamee wuñ ko noonu. Mhm. wala suñu ay priorité li nga xam ne fa la ñu war a pale ñu la ca war a topp la ca war a topp ñun ñoo ko xamal suñu bopp. Mm-hmm. de sorte que ñu bëggoon fekke foofa suñu nee fii la ñuy commencé ci ñu ñu naam baax na waaye suñu sañoon fii ngeen war a commencé ndax lii la ñuy xaar lii li moo gën a jàmp ci ñun. Mm-hmm. dëgg la ñuy waaj ay élection euh, ñu bëggoon a xam rek euh, nan nga apprécier justement leadership féminin ci wàllum politique. waa gis nañu depuis depuis depuis depuis longtemps nag. depuis mm. les années soixante taxawaayu jigéen. Mm. gis nañ ko. ci ci ci combat yëpp. Mhm. ci combat yëpp jigéen mi ngi mi ngi def euh, kemtalaay kattan. Mhm. te combat soo gisee combat yu mag yi ñu gagné yëpp nag wax dëgg yàlla jigéen moo ko taxaw. Mhm. jigéen moo taxaw su nekkul ci kanam moo nekk ca ginnaaw ka ci kanam. donc ñu gis ni loolu ba tey mi ngi nekk. mi ngi nekk tax na tamit nag ñu am ay ay aki ñu am ay yu ñu am yoo xamante ne bii duñ ko néewal doole wala ñu xeet ko. waaye su doole ñu gën ñu jël. ndax tey am na ay loi yoo xamante ni bii jigéen fii ci Sénégal am na ko. Mhm. naam xëy na am na lu bëri loo xamante ni bii yoon xañu ko jigéen. Mhm. suñu texte de loi yi xañu ko jigéen. waaye nag euh, coow li ci njëkk mooy ndax ñun xam nañu loolu. Mhm. parce que tamit bala nga ni naam ne fa bala ngay laaj sa ay droit il nga xam ko ba pare. te gis nañ ni ñàkk xam bi dafa nekk lu bari ci suñu kuréel yi. Euh, donc leadership bi loolu li ko xaw a naxasal tuuti ci la bokk. Mhm. pour firnde rek si affaire parité bi ñu génn bari Demba mhm. ci élection yi ñu génn gis nañ ne loi bi voté nañ ko. dëgg la mu ñu voté ko depuis deux mille dix. Mhm. ñu ni kat amul benn euh, mbir mu ñu fi war a tëralal ci élection te duñu def góor a jigéen. waaye seetlu bi ñu seetlu ñun ñëpp mooy Euh, collectivité territoriale yu bëri installé nañu seeni bureau te respecté wuñu loolu donc kooku liy nasaxal leadership bu jigéen loolu ci la bokk mhm. ñàkk respecté loi yi mhm. ak ñàkk xam bi ak aussi effectivité bi mhm. mooy maanaam lii kat dox nañ ko euh, voté nañ ko am nañ ko waaye doxaluñ ko ou bien nañ ko war a doxale doxale wuñ ko noonu beneen mbir bu ci laxasu tamit muy am harmonisation d'accord muy maanaam lëkkale boole li nga xamante ne bi mooy suñu instrument juridique parce que mën ngaa wax fee ca lee nga ñëwaat ci beneen texte mu wax la leneen mhm. d'où la nécessité d'harmoniser maanaam ñu lëkkale loolu nga xamante ni méngale loolu nga xamante ne bi Sénégal xaatim na ko wala jël na ko ak ay texte de loi mi nekk ci biir réew mi mhm. euh, waaye gis nañu tamit taxawaayu jigéen ñi mhm. euh, ci combat bi bàyyi wuñu ba tey gis nañu aussi seen sàkku xam-xam ñi ngi dem sàkku ji xam-xam bu baax a baax pour euh, maanaam yokku seen xam-xam yokk seen daraja pour mën a toog fa nga xamante ni bii ñuy defee di dindee pour seen kàddu mun fa jóg bu baax. Mhm. waaye aussi di joxe ay proposition mhm. parce que doone rek damay xëccu dem toog fa ma war a toog. Mhm. ñëw toog fa en tant que yokk mbooloo. mais nga toog fa ak loo xamante ni jumtukaay yoo xamante ni bu wax jotee bu proposition jotee nga mën koo génne teg ko ci table. Mhm. tey ñuy wax bëri na liñ koy tudd sax autonomisation des femmes autonomisation des femmes. ban mhm. jàngat nga ci def. ci lu yàggul ci semaine bële nee rek. Mhm. maa ngi def yëkkati sama kàddu ci ci Nations Unies ci activité parallèle boo xamante ne bii kuréel bu mu nekk Wilda. ñoo ma tànnoon ak handicap international pour ñu wax ci loolu. waaye mu jëm ci personne handicap. muy maanaam mënal sa bopp. mënal sa bopp bi nag dafa am yu ko gàllankoor. mooy ñun jigéenu handicapé yi li ci ëpp. Mhm. lan moo tax dañoo beddi ci li nga xamante ne bi moom mooy système bi en général. Mhm. parce que ku wax wàllu liggéey di nga wax wàllu jàng. Mhm. di wax wàllu formation. te njàng moomu am lu ci laxasu bu baax a baax pour ñu mën di dem jàngi ñun jigéen ñi. beneen bi ci topp formation yi nga xamante ne bi moom la ñuy def maanaam dooleel nit ki pour mu mën a. bu ñu waxee liggéey laaj liggéey tel liggéey wala tel liggéey nga répondre ca critères yooyu. Hmm. loolu dafa poser problème ci jigéenu handicapé. Hmm. boole loolu déjà au Sénégal jigéen en général dafa am problème boobu jafe-jafe boobu. Hmm. léegi boo ci dollee sa laago kooku dafay nekk double vulnérabilité. dafay gën na sax pour nga egsi fa dafay métti. beneen mbir boo xamante ne bi mi ngi ci laxasu tamit muy maanaam xeetu bundu xataal yi. xeetu bundu xataal yi dafa bundu xataal yoo xam ne dafa tegu. ci kaw jigéen waaye dafa tegu ci jigéenu handicapé kese mm-hmm. parce que dafa nekk handicapé moo tax ñu koy teg xeetu dundu xataal yooyu loolu am na. Mm-hmm. tey donc. Mm-hmm. mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni bi pour li nga xamante ni bi moom mooy suñu moom suñu bopp ci wàllu koom. mu nekk jafe-jafe boo xamante ne bii ñu ngi koy dund. statut de la femme également noo ko jàngate ndax tey jigéen gëddëm ñu ngi koy gën a yaatal ci société bi. waaw waaw mais tamit il faut ñu reconnaître aussi que jigéen dafa mérité loolu. Mhm. actuellement nii. Mhm. du loo xamante ni daf ko négocier wala dañ ko ko may. Mhm. mais daf ko daf ko daf ko xeex. daf ko xeex parce que soo gisee kër yi léegi jigéen ñi kenn toogatul. dëgg la. benn borom oto wax na ma ni ma man de su ma xëyee taxi la mu ni su ma xëyee. jigéen laay njëkk a guddi gi su may wàcc jigéen laay mujjee yab. donc ñoom dafa am loo xamante ne bii wax dëgg yàlla ñu ngi koy xeex ñu ngi koy def ñu ngi ciy lu lépp loo xamante ne bii mën nañ ko ñu ngi koy def. Mm-hmm. kon kooku en retour dafa am loo xamante ne li ñuy wax ne dafa am loo xamante ne bii dañ ko ko war a njukkale. Mm-hmm. dañ ko ko war a njukkale bien que bien que ba tey am na ay yen jafe-jafe. au mm-hmm. niveau des familles. parce que je vous dis actuellement mm -hmm. au moment où je vous parle j'ai des cas de violence yo xamante ne bi manque de considération jigéen la jigéenu handicapé la mm-hmm. jigéen en général parce que yëngatu naa ci wàllu woo bu baax si wàllu xeetu bundu xataal yi mm-hmm. jigéen ñi ñu ngi leen di bundu xataal ci biir néegu yi ci société bi en général ba tey jii ne am na ñu gisee noonu que loolu moo war a nekk jigéen warul yëkkati kàddoom jigéen nii la war a defee jigéen dafa war a toog ci kër gi jigéen dafa war a togg jigéen dafa war a yàq warul génn mais tey gis ni visage boobu mi gi changé tuuti. Mhm. parce que dangay gis jigéen boo xam ne tey ji moo yor njabootam. Mhm. su liggéey jotee bu ñu demander profil jigéen ñi dañuy répondre ci profil yooyu. Mhm. donc il faut aussi regard boobu ñu tegoon ci moom il faut mu changer par rapport ak statut ni mu ko changer. d'accord contexte bi léegi laajatul li nga xamante ne bi bu njëkk loolu la ñu waxoon. loolu la ñu waxoon ou li bu njëkk loolu moo doon dox. Dieynaba ñu jeexaleek euh, loi d'orientation bi nga xam ne Sénégal voté na ko il y a de cela douze ans euh, deux mille la euh, tey boo ko doon xay ci xayma. loolu ci mën a wax. loi d'orientation sociale bi. Mm-hmm. mu nekk benn instrument boo xam ne. Sénégal voté na ko. Mm-hmm. depuis deux mm-hmm. am ay ponk yu am ñu nekk ci loi bi. yoo xamante ni bi vraiment euh, soo ko déggee sa xel dafay dal mhm. waaye tey jii liñ ciy njëkk a euh, jooy mooy loi bi bañ ko voté ba tey effectivement parce que dafa am ay ponk yoo xamante ni bi euh, président moom moo ko de la république moo ko war a signé di mu war a nekk ci fukk ak benn ñett lañ ci signé nga xam ni loi bi desse na pour ko ñu doxal ko niñ ko mhm. war a doxale mhm. loolu c'est un problème te c'était depuis en 2010. Mm-hmm. donc aussi loolu ñu ngi ci poser ay question lan moo teree loolu nekk. Mm-hmm. am na nag ay ponk yoo xamante ni bii jël nañ ko ci loi bi ay euh, pour nekkinu handicapé bu ci jëkk damay wax carte d'égalité chance parce que loi bi yëpp ñu bëri jàpp nañ ne carte bi kese la. Mm-hmm. mais carte bi dafa amoon solo ñi nga xamante ne bi ñoo ko yore bi ci njëkk mooy. dinañu xam li mu handicapé. Mhm. nga xam ne fii Sénégal dafa doy waar recensement bu njëkk bu mujj bi est-ce que jël nañu li mu handicapé c'est un problème. d'accord dañoo am problème sur toute la ligne pour sur les statistiques des agrégés des personnes handicapées. beneen bi ci topp lu euh, carte boobu dina permettre. Mhm. ki ko yore ci li nga xamante ne bi moom lay soxla moo jëm xam ci wér gu yaramam la. Mhm. moo xam ci services sociaux de base yi la dina ko mën a jot. ci tàmm ci carte boobu. Mhm. waaye nag jafe-jafe dafa laxasu ci loolu. mooy lan ñëpp amuñu carte bi. ok donc yéexinu doxalin defar carte bi kooku remarqué nañ ko. beneen bi ci topp mooy ñi nga xamante ne bi jot nañoo yor seeni carte euh, euh, service yi leen may ñu dem fa dañ ci am ay jafe-jafe lu mel ni faju bi wàllu faju bi dañ leen a war a enrôler ci ay mutuelle mhm. des fois ki yore carte bi dem am benn soxla ci wàllu wér yaram ñu ne ko carte bi du jël lii en charge wala mutuel bi du jël lii en charge mm-hmm. beneen bi ci topp euh, ordonnance la même chose beneen bi ci topp mooy jaabante bi nga xamante ne bi ki yore carte bi war na ko def mm-hmm. balaa muy faju ci nan parce que ki war a faju defe naa ne dafa feebar mm-hmm. mënul jóg mënul dem dinga nga jaabante di nga dem photocopier di nga ñëw di nga dellu siwaat donc yombul. Mhm. yombaluñ ñu système bi système bi am na ci lenteur yoo xamante ne bi ak jaabante ak métit yoo xamante ne bi war nañ ko seetaat beneen bi ci topp muy bourse bi parce que euh, dañu daje woon ak président ci la jël ñi yore carte ñëpp mu aroo leen ci bourse familiale yi. d'accord loolu sax c'est un problème parce que ñenn ñi am na nañu carte te bokkuñu ci bourse bi. Mhm. du dañ lay interpeller de partout et de tous les jours. ñooñu nga xamante ne bi yore nañu carte bi di fayeeku mm-hmm. dañuy ñëw des fois fayeeku rang ci poste yi mm-hmm. dafay am ñoo xam dinañ fa fanaan parce que fo ñu dëkk am ñoo xam dañuy luye oto bokk bokk loo ko ñëw suñu ñëwee ñu wax leen ne leen xaalis bi jeex na wala duñu mën a fayeeku tey ñu lal fanaan ba le lendemain pour mën a fayeeku des fois lendemain boobu sax du tax ñu mën a fayeeku mm-hmm. donc loolu dafay dafa nekk jafe-jafe boo xamante ne bi laxasu na ci carte yi dolleeku ci ñi nga xamante ne bii jotaguñ ci. am na aussi beneen mbir bu laxas bu bu bu ñu def ci loi bi. mooy ban. Uh, dañu wax ni dañuy am benn kuréel boo xamante ne bi dañ koy loger ca présidence. Mm -hmm. pour ñuy lijjanti problème waay laago. d'accord mu nekk mbir bu am solo. loolu ba tey taxawagul parce que li nga xamante ni mooy décret d'application bi ko war a def signé guñ ko parce que ku ne xam na ni euh, mbiru handicapé du ministère moo ko mën a lijjanti parce que du benn ministère rek. Mhm. problème mu handicapé dafa transversal. donc ñu ni ci loi bi dañuy jël benn kuréel loger ko au niveau de la présidence. Mhm. nga xam ne du am kenn du am ci moom du am hiérarchie yooyu. du am kilifteef ak yooyu. Mhm. donc dafay liggéey ak ñi nga xamante ne bii lépp handicap daf leen a laal. loolu aussi sooxe na parce que décret d'application yi ko war a accompagner pour mu nekk. nekkagul. moo ngi moo ngi bëgg a yéex. <laughs> Ah, vraiment vraiment. <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax soxna si Dieynaba Diallo yow ngay chargé de communication fédération régionale des associations de personnes en situation de handicap bu euh, merci beaucoup.